mbokk internet Wassare Lamb ñu ngi leen di nuyu lamb ji sifflé ab mi si diggante Gaynde Daaru ak Caatu Gaynde Daaru écurie lang Sané Caatu Marché écurie day for mbooloo eh, ay Gaynde Daaru moo dërëj bopp Caatu Marché moom lañ jàkkaarloor ñoo ngi lewtoo ñaari mbëri ñaari mbëri ngi lewtoo ñaari mbëri ñu ngi lewtoo premier combat de la soirée si diggante Gaynde Daaru ak Caatu Marché ar bi nee ngeen bëre ñoo ngi lewtoo ñoom ñaar gaynde daaro laaw dalul na gaaw na gaaw combat bi yàgg na eh gaynde daaro cokkaas gaynde daaro ngi avancé fayu na Caatu Marché fayu ngi dóor Caatu Marché ngi dóor ñoo ngi damantey baaraam Gaston ngi bëgg accélérer combat bi Gaynde Daaro ngi laaw waaye dalul eh! ay <laughs> Gaynde Daaro Gaynde Daaro suq la bëgg def suqi <laughs> at bi na at bi arrêté na combat bi ak bu tax mu arrêté combat bi ñoo ngi bëri abi jox na avertissement caatu marché Fouta ñoo ngi bëre de ñoo ngi leew too ñaari mbëri ñoo ngi leew too abi bi neen nañu bëre ci diggante Gaynde Daaru ak caatu marché xeex Caat Mbaye dina ba Gaynde Daaru dina tàng ba Gaynde Daaru koy bu ko yëkkati da koy buddi wala lu Daaru daan na Caat Marché supporters yi nañ tey lii waaw Daaru ngi daw si mar moo ngi daw si supporters jëlal njàppam moo ngi njàpp ah ah nee na moo ngi ñëw. waaye jubal na xëy na xuma woon naa moom. ay sa borom nuyu nañ la. ooy ñu ngi lay fay dinaa ma sant yàlla jul si yonent bi di sant leen di jeexal balaa ñu maa xam ma jeexal leen billaay wallaay man ma maas ni ma toll nii naa leen nax leen daal ëpp ñu ma kàttan barki alxuraan di sant nag sama kos baax a baax a baax a baax booy caaw ber iba billaahi grand lës di sant sama grand zil billaahi dañoo sonn si man bay gul barki alxuraan seex sama cumuxaay sita waa di sant yëmbal yëpp su ma limee mooy cub gaa ba si jàpp tey ba may génn barki alxuraan mairie waa ak Omar waa ak Omar sama lonkoo la billaahi yàlla na ko yàlla defal jàmm tey ba may génn mairie dañ doon jooy barki alxuraan waa di sant booy sama boy xoolal xoolal la lee yombul man ay booy ndar rek laay àndal barki alquraan karim di sant iso gaa gaa si jàppe maa leen di sant waa di sant marne waaw yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla may ko si kaw soq waaw yaa ma gën a xam te combat bi combat bi noonu mu lamb kaar xaar la naxante grand ak six la grand six lamb lamb kaar xaar la naxante dañoon naxante man moom waaw jëkk nañoo jàpp ne man ak moom si la ma doon jéem a peese bon si la ma doon noonu la demee waxo maa daan jël bu rëy état yëmbal laa jëm nii waa di sant booy nekk si kaso bi sama benn rakk dañ kaa doon jëm ko kaso mbës di ko ñaanal yàlla yàlla teggi nattu di ñaanal ñoom lasi booy nekk kutaal ñoom la si ñëpp maa leen di ñaanal gaan yàlla jëlee leen fa waa di sant ñëpp péché e, naa ñoom Godard billaahi sama boo yëpp ñoo ngi si kaso billaahi waaw noonu la demee nag waaw di sant jeelmaan yëpp su ma limee damay juum ndax ñoom dañuy toog ñu nekk sama kanam yow xam nga ko après naa la wax la ko kii mooy sama kos lu mu wax rek loolu la waaw noonu la demee nag waaw di sant ñëpp yëmal ñëpp